ودام خير ودام صبره أرسله رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا Poroxaan Poroxaan di gox bu nekk ci région Kaolack ci departement Nioro féete ko ci bët gànnaar seen diggante toll ci juróom-ñetti kilomètres Poroxaan di gox bu siiw ci àdduna bi te li ko waral lenn lu dul soxna su tedd sii di soxna maam Jaara Buso di waajur ci Sëriñ Tuuba moo fa tëdd lan moo doon sababu ñëwu soxna sii fii ci Porokhane bunt bi ñu taxaw moy buntu xombaxa gi nga xamne de nga mam fi la Maba Jaxu don jaar. fi palem la hon ka bépp ka ku ma sa andal fi la fii nga dekkon ak mom andon nak de nga mam ñu bari ñu sant ñass ñu sant de nga mbacke ñu sant de nga Faal euh, ñu sant drame ñu sant saxo ñom ñep la andu ko Maba ba dem ci ñu bëri ko top démb lañ daje jëli mun taxam mbacke mu ñëw dégg ma jullee ñun fii tamit tegal ñu première pierre bi fu mu ne nii ta dàngu bu rëy lañ ko bëgg a def daara lañ ko bëgg a tabax. ci jeexu 1864 wala njëlbeenu 1865 ci lañ ñëw Poroxaan ànd ak sangam bu tedd ba Serigne Mbacke Mor xam nga kilifa yu bari ñoo fi daje woon du woon Mamoroon Salik moo fi nekkoon kilifa yu bari yu lislaam ñoo fi nekkoon ñaseen yi sax ci jamono yooyu lañ fi ñëw ñoom itam ndax jolofa ak Kajoor ak fu ne la maba jële woon nit ñi ñëw ñoom biñ leen wooyee dañoo gis ne ñoom amuñu droit gàmtu woote bi lislaam moo taxoon ñu ñëw participer si ci jihaad ji waaye nag yàlla ji leen fi andi woon loolu moo tax résultat bi feeñe nii ndax am na ñeneen ñu fi ñëwoon te seen résultat kenn ko ne yàlla moom li nga ko li nga ko li nga ko jëfal rek loolu ngay ngay ngay moom ngay moom ngay moom ngay fayu dëkk na boo xam ne nag euh, ñun njëkkuñ fi ndax ñoom mag ñi ma nett wax nañ ni daal bi bi njëkkee sosu ay mille six cent nangam fekk na mu sosu euh, ndax bu bu buñ la waxee ne la ay séeréer ñoo fi njëkk a dëkk da xam ne lu yàgg la euh, ndax ñoom ñoo tur yi sax nee nañ ñoo ko ko jox ndax boobu yàlla dafa def boo fi bayee dugub de bari bari barkeel boobu kenn xamul kañ la 1600 xam ngeen jiitu na <laughs> jiitu na xew-xew yëpp ñu ñu ñu tuddee ko ñu tuddee dëkk yàlla def ñu ne fi booba portugais sax ñoo fi ñoo ñoo yilif fii. ñu fi anglais yi anglais yi yilif ba ni ba niñ ko séddoo français yi. gën ginnaaw bi nag daanaka taal dëkk bi raaf dara nekkatu fi raaf na ñaari yoon ndax boobu demoon nañ bu kenn dëkkatu fi ginnaaw bi itam. bi bis ñi nga xam ne noonu li nu ñoo li li nu soxal euh, mu mu tàmbali na muy taarixu sëñ bi ak soxna si mu boobu yi dafa kenn ni mu fi ndax xam ngeen ngeen ko xam ne bii euh, maba joxu di wut doole dem fii ba kajoor fii ba boowal fii ba jolof di di di sëñ daara yi ku ci am ku ci am mbooloo moo xam ne dëgër nañu mu ànd ak yow indi la fii ci loolu loolu moo ñu fi indi ñëwee ca ca ca maam Balla mu boole leen ak maam Mor Anta Sali ne leen boobu moom màggat na mënatul dara maam Mor Anta ñu ànd ak njaboot gi boobu ci ci ci mu ànd ak soxna si ñu ñëw fi biñ ñëwee nag ñoro moom pays la ndax fa la li li li ñu mën a tudde état bi foofu la nekkoon fu doon pays nag dana xaw a am ab yëngu jaxasoo ba it dana fa gën a bari comme ñoom dañoo soxla woon fu ñu mën a wéete nag ngir mën a sàmm seen ngoro ak seen diine ak mën a liggéeyal yàlla ak mën a yar seeni njaboot mën a am itam fu ñuy fàggoolu lew duñ mën a dëkk nag ca pays ba fokk ñu dandutu tuuti ngir liñ bëgg seen njaboot ak liñ liñ bëgg a rawalee seen pas-pas ak seen diine ñu man ko loolu moo sababoon moom itam maba dëkkal si leen fii nga xam ne suñ leen soxlaa foofee rek ngir luñ fa war a leeral ci lislaam wala luñ fa war a taxawee ñu dem fa buñ ko taxawee ba noppi dellusiwaat ci seen i tool ak seen i ak seeni njaboot waaye nag li leen fi andi woon mooy dëgëral lislaam ak yëkkati raayooy lislaam loolu moo tax résultat bi nga xam ne moom la leen fi yàlla jox yàlla jox leen ko sañcul dëkk bi waaye nag moo fi andi barke bi xaj na as la fi fekkoon wala ñaari kër wala ñett ñaari kër wala ñett waaye nag barkeel gi ñu barkeel moo tax lépp mujj yàkkaliku ci seen barke yaatu ci seen barke kii di taawam bu baax ba di sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké di xalifaam bu njëkk moo joxe ba lu war a am ci ab dëkk mu am fii ci poroxaan maggaayu dëkk bii di poroxaan gaaw na lool te dëppook orma yi nga xam ne moo war ci dëkk diine bu ne sa basiw kara bi may jox dëkk bi mu dajee ba mu daje ki fi newoon di sëñ Mor Yaasin Mbàkke mu sant ko wàcce ko ca daan ne wàcc sekk day seet naa ba mën naa jaxasoog sëñ ba moom lay jox dëkk jàmbaari sëñ Tuubaa bam bam bam bam bam ko defee mbooloo mépp daje mu wax leen lépp lim ci bëgg ak lim ci nar fekk na boobu lu jiitu loola dajale na adduna yëpp tey jii ñu ngi xëccoo ku naan lii sama tool lii du sama tool dajale na adduna yëpp na leen ku fi sàmm andi na nga tuxu ku fi béy andi na nga tuxu fii duudu dëkk yooyu loolu nag nit ñi fàtte nañ ko léegi lu leen neex dëkk léegi nag bi nga xamee ne jox na ma keroog bi may jox dëkk bi juróom-ñaar fukki carré ak juróom ñoo même moo ko jox quatre-vingt-quinze neuf cent quatre-vingt-quinze la moo ko jox ma nekk am ji ak samay jàmbaar ñu nekk ci nekk ci nekk bi fii mu nekk boo seetoon rôle bi tey euh, mille deux mille nangam carré la. Baye moo waa këram ñoo àndoon di di fi bàyyi ko it Baye Aliou nga xam ne moo doon moo doon doomam moo ko moo ko liggéey boobu ci ndigalul sëñ ba waaw ba sëñ Basiru ak sëñ Moussa Basiru bi loolu weesoo it man mii la sëñ bi indi eh, ma aw ci liggéey bi di seen doom aw leen ci liggéey boobu. na daal naa ko mu dénk ko mooy na nga na nga ci am kii na nga koy te xam ne ñëpp fay ñëw ñëpp gi nag du murit rek du xaadir rek du tiijaan rek du katolik rek ñëpp fiy ñëw nam ma ko waxee woon maa ngi ko nii gisee ba tey. barab bi feeñaat ñu def fa ay bant ginnaaw bi nag lañ lañ ko def li ñuy ay xànq bant bant yi ba mu wër ginnaaw bi ñu tabax ko tabaxu ban nga xam ne bi suñ wusiri jóge nag na ay mool yoo xam da ko bëggoon def en moom moo ko njëkk a tabax tabaxu tabaxu en dur suñ Moustapha bi muy xalaat daara ji dafa dafa xamoon ni Mm, soxna si bu fi newoon ginnaaw yàlla ak njabootam taalibe la ciy teg te ginnaaw taalibe nag ñoo ñaq di fi indi seenu liggéey moom bëgg leen caa sedd. Poroxaan nekk na gox boo xam ne soxna Maam Jaara Buso liggéey na fa liggéey bu am solo te wane na fa it jikkoom yu sell yi nga xam ne moom la baaxoo taqool. bu matt ngay xar say gaal say say walis ak say gaal di ko xam ku liggéeyul yàlla buru ko. wutal ndox sa boroom kër jaral la ngay tàbbi ci ab teen ku liggéeyul yàlla ku dëgguwut mënul loolu ak yeneen ak yeneen te it walam tuhin ahadan walam tashin amada walam tubin abadan man abaha maana mësta doyadal kenn maam jaara mësta ñaawal benn jamono diirub jamono mës ñaawal benn yoon mës ta fay itam li jigéen ñi def mës def kon nag kooku ku wax leneen lu ak mbaax ci moom la nga wax day wuuteeg dëgg waaw ña fa nekkoon ci daara sëñ mor mbak sëñ mbakki mor lii nga dégg ñu di ko wax ci maam jaara nga xam ne loo loo loo sàkku si ci barab bi tey am ko loolu la jaral nga jóg ba ñëw ba fii boo di da nga koy am te loolu ñun ñi fi nekk ñëpp ñu ngi koy dund ndax bis nit ñëw fi nañu dama fee ñëwoon ci fan yi doon wut dara ci maam jaara ba ma ko waaye loolu itam ña fi nekkoon démb it loolu lañ daan wax dongay dañ daan wax ne man xaawalu xaajatan fi malkiha wajadu nujal xawaaji laa yalqawna xirmaana mam jaar daal li ko yàlla may lim am lim am loo ci bëgg rek da koy amee na ko bëgg faju aajo nga ci am kenn du dem ci moom daal di dëpp di delloog di delloog loxo yi neen waaw kenn du ñëw ci moom di xañu doo boo di boo amee yaakaar daal ba jëm ci moom doo dajeek ak xañ langa yaakaar ci moom rek pajukaajo nga cee am. am nañu ko fi jiitu woon ba yàlla taggal leen boppam ci ci alxuraan tudde leen boppam ci alxuraan loolu it moo lay xamal xam-xam bi nga xam ne yàlla xamaloon na ko soxna si. soxna si nee nañ juróom ñooñu wax na ni da a fekkut ci ci jamono waaye bu leen fi fekkoon euh, duñ ko mën ci liggéey. boo ne doom ñi ndey waaye boo ne Touba it poroxaan moo tax nii Touba di yokkoo. di jëm kanam poroxaan ci tànk yooyu rek la tegu. dëkk yi ci gannaaw dëkk yu mag la war nañ ko am na soixante nangam village soixante cinq xaw ma soixante six village yoo xam ne fii lañ mbootu ci commune rurale bu Porokhane bii def fi marché boo xam ne bu mag la ajjuma lañ fi daje. nekk na yaakaar naa nag war naa mat boor bi daal war naa mat ñaari ñaari ñaari kilomètre waaw boor bi xam naa ne li koy manqué du bëri moom xibla lañuy daal fi moom Saalum gànnaar war na ëpp na ëpp na un kilomètre. ñun nag yàlla dañoo dimbali eh, ak ak bar barkeeb soxna si mu mel ne soxna si dafa def plan boppam boo xam ni sañuñ koo bañ ci la ñuy topp ñëpp dañoo maase rek lépp loo xam ne dëkk bi laaj nag ñu fi nekk di ko def ku fi dëkkut itam boo fi boo fi rombee sàmmanteeg loolu. lépp loo xam ne yellu fii itam ñëpp marché ci bàyyi ko waaw nga xam ne njëlbeen nga métti woon na ci noonu waaye mujj ji euh, ab noflaay lañ ci am bi ñu demee ba nga xam ne tubaay nit ñi tàmm tàmm bàyyi nañoo bàyyi na it fi moom loolu fekk ko ci loolu ci lañu wéy ba ba ko suñu laa yàlla dimbali nañu ci ci ci ci wàll boobu noonu yàlla dimbali poroxaan na barabu ziyaar yu am njariñ yu fa ne. maam Moor xam ngeen ni eh, ñu fi la fi mu maam yi fi tëdd. Eh, ba ñu ngi fi tëdd. sëñ saa yu yoo xam ne jamono yi ñuy tabax barabu maam jaara yi ci bari soxna jaaratullaa ak ñaari teen yi nga xam ne. moo fa ne bii ñu tuddee ko teenu soxna la ndax root gam fa daan roote bii teen ñu tuddee ko teenu soxna Fat Ja ndax moom moo ko gaslu poroxaan tey mi ngi ci loxoy sëriñ Muntaxa Bachiru Mbàkke gannaaw ba mu wutoo sëriñ Moustapha magam ju baax ja mu ànd kook waa sëriñ Touba gépp di ko ci jàppale ci njiital ki nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Khadim te loolu lépp kii di Serigne bashiru Poroxaan ci atam 1972 ba tey mi ngi fi di saytu dëkk bi. di ñaan sunu borom mi nga xam ne dara tëwu ko te moonu digal ñu ñaan ko yàlla yàggal fi Serigne Sidi Muxtaar Mbacke ak Serigne Mountakha Bassirou ak njaboot ak Serigne Touba gépp ba li ñu yéene ci dëkk bi ñu amee ko nañ ko bëggee. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi salaam la location de voitures et du transport touristique. Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal. Sénécartour, c'est la haute gamme et les plus grandes marques du monde, à l'image des grands pays d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Sénécartour, c'est un parc de prestige et une flotte de plus de 400 véhicules, dotés de toutes les options de sécurité et de confort les plus récentes, de la berline à la luxueuse, en passant par l'utilitaire et le tourisme. Grâce à ces bus neufs, spacieux et de dernière génération, Sénécartour a aujourd'hui l'exclusivité de transporter les passagers au débarquement et à l'embarquement à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Des bus d'une qualité et d'un confort irréprochable qui ont été appréciés par le président de la République au cours d'une visite au site même de l'usine mère. Tour a fini de séduire dans le transport lors des grandes rencontres internationales, les colloques, les séminaires, les conférences de haut niveau, grâce à une équipe dynamique dotée d'un savoir-faire pointu. C'est Tour, une nouvelle vision du transport. Tour vous souhaite un bon gueule de bas. Magal Touba édition 2016 pour Fourni vous ila Touba Se televizyon DTV ne ken do kou fejitou. Nam kou defen wan daout nou koraw. La kon nore ande gen renjile. Liko tamble, ben fankou euro safar, be 18 safar. Dibisouk magal gim, way dinaw magal gim DTV. Danakou sampou ay banga samte toubam, ki ay platou en spesyal. ay reportage waaye tamit ay documentaire ànd kook ay boromi xam-xam yu xam lool tariixa muridiya ngir waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul akub liggéeyam kon mbokk yi bu ngeen bëggee dund dëgg-dëgg màggal Touba édition 2016 nga nekk ci réew mi mbàcce bitim réew àndal ak télévision DTV dara du leen ci wump màggal Touba 2016 fii la ci seen télévision DTV